خلا آدمي خلافة ملكية خلا آدمي خلافة ملكية متى أدركتنا لي زمان بلية وجئناك نشكوها نفوس سجية سخطنا مرارا الرياحة هاشمية بخمسة أنهار تفجرن من خمسين monsieur Ahmed Tidiane Seck di xalif général Tidiane Canam su fi ñu ànd ak ñu liggéey bi ak mbooleem ñi ñu fekk te àndandoo ñoom Canam ba liggéey ci xalifa yi te kenn ku nekk mënoon a toog fii ñu toog di doxal li ñu jiite waaye yàlla nattoo yi sëriñ bi di jiital ci ay kàddoom cant ak ngërëm li jiitu ci suñuy diggante rawati ci bis bi ñu dëgmal te ngeen ci daan am taxawaay yu mat yu rafet ñu gën koo yaakaare tey ànd ceeg xel mu dal allah di sant ak gërëm chef de service yi nga xam ni danga def liggéey bi ci seen loxo ñoom it ci li jiitu li lépp moom yàlla rek ko mën waaye daan nañ ci jëm seen kem kàttan comme ni nga ko waxee ñu sàkk ci ñoom loolu ci mën a rek ngir jëm bi ki ñu koy defal mi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu jéemaat ci seen kem kàttan di rafetlu sa kàddu yi nga xamante ni ci li ko dina yëpp nga ko yëkkati te Tuubaa ci bis suñu maam Xaadimu Rasuul bi mu génne te ñun ñëpp ñu bokkoon teewe ko ci ndigalul kilifa yi ñu yónni woon di ñaan yàlla ci yàlla yóbbuwaat ak jàmm lii lu dëgg man mi ngi dem ñu commencé ci bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu bokk ñaanal Faatiha ñun ñëpp julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan lii ñu dugg ñu commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim eggal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf jërëjëf sëñ bi bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi yàlla defal nañu ko ñu sant ko julil ko ci sang bi nga xamante ni nii sunu jëmm yi yëpp ñuy gis ci barkeem la ko sunu borom bind ñu ci profitoo di soññ suñu bopp di soññ mbooleem ñi fi teew ci ni lépp loo xamante nii luñ fi damaane la rek ci guddi tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu gis ni du daraja wala xër gu ëpp waaye aw xeetam ñoo fay daje di màggal bis bi nga xamante ne ni ci la àdduna bépp jot indépendance ci seen bopp kenn ku nekk bàyyee ak sa moroom àqam ci ñett yi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni kullul mumini xaraamun alal mumini dammuhu wa maaluhu wa xerduhu nga xam ni lépp lu jur fitna ci àdduna bi rek ñett yooyu la mooy nga xas nit ki ci ab deram wala nga xañ ko àqam wala nga tuur deretam ñett yooyu kenn ku nekk bu boo ci mayee sa morom indépendance rek defe naa ne adduna bi yëpp lañu nekk ci jàmm kon fitna bu judd itam ci ñett yooyu la bawoo ki ñu dimbali nag ba nga xamante ni lu fi des seytaane moo ko téye di ci jaxase diggante nit ñi wala diggante réew ak réew ki ñu dimbali ba li ci ëpp ñu am ci jàmm mooy yeneen bi ñuy waajal bisam bi kon na ngeen jàpp yéen chef de service yi ni lépp lu ngeen manoon démb ak bër ki démb di ko def ci bis yu mel nii waxuma canaba rek na ngeen ko dolli seen kem kàttan te xam ni yokkute rek moo ciy juddoo sunu kàddu nag liñ koy jiitale mooy ci turu Serigne Canaba mooy nuyuwaat euh, monsieur le ministre de l'intérieur monsieur Aly Ngouille njaay comme ni ñu ko doore woon ci turu Serigne bi nag la ñuy waxee muy wax joo xamante nii du ngistal du wax joo xamante nii dañ koy nuru rek ngir ci kanamam waaye gis nañ ni waxtu wu nu fi ñëwee sa yéene ci biir ba ak ñun ñi nga xam ne sëñ bi délégué ñu nga wan ñu ni mel na ni sëriñ bi laa leen jàppe ubbi nga sa xar kanam macha allah muy baslul wàcc yi te bokk ci yi nga xamante nii dañ koy tàggee ab jullit ubbi kanamam comme ni ko sëriñ Juga Mbeng nga waxee ba ñun ñëpp ñu ñime fu ñu warul woon a àgg sax nu àgg fa waxuma ñun ñi sëriñ bi jiital waaye njaboot gi yëpp kenn ko ne lu nekkoon ci xelam rek yëkkati na ko te wone woo ak yàkkam ji gis nañ réunion bi ni mu diiree ak sax xataayu euh, euh, programme waaye nag euh, gisuñu benn yoon ci sa kàddu nga ni nañ gaawal réunion bi ndax nàngam kon loolu ñu ngi ciy sant bu baax di ci gërëm di ñaan yàlla loolu yàlla na la jural yokkute koo xam ne àdduna yëpp dinañ ko seen muy ndam ci yow àdduna ak di la ko yóbbante nag ci président de la république bi nga fi toogal monsieur Macky Sall di xaritu sëriñ bi di doomam te ku ko xam-xam sëriñ bi rek xam seen diggante ci loolu muy lu yàgg itam di ko seedeloo ñi fi teew ñëpp di nuyu chef de service yi itam di leen gërëm ñoom itam ndax gis nañ ni ku ci ne jéem nga ba jéem loo mënul bu ñu la santee loo mënul sax ci sa biir tontu dañuy gis ni am nga ker kersa yëkkati ngànt loo xamante ni nii yaa ngi ko jëmee ci ñun bañ a wax loo xamante bis dina teew te doo ko man tax nga bañ koo mën a yëkkati dinañ gis ni diis na ci yow trop di sant presse bi fi teew yépp itam di jaajëfal mboolem ñu jóge Canaba Seck te ñëw ànd ak ñun euh, réunion di gërëm sous-préfet bu Canaba ci sa kanam di ko seedaloo euh, monsieur le ministre ak gouverneur bi nga xamante ni Mouhamed Moustapha Ndaw nekk ak moom ca biir Canaba moom it bi mu dikkee Canaba engagement yi rafet mu jël ko wan sëriñ bi seet si ko ni damaa xam lan mooy gëddee canaba ñu sant ma pour ma ñëw jox leen àq jooju ak gëdd boobu te gis nañ ne boobaak léegi ci loolu lay dox moom préfet su préfet mëdun buum nag boo gisee ni nit ñi réactionné wu ci mbiram rek nga wane ci ni da ngeen a ñàkk doyal ci moom waaye ku nekk ci administration ku ne yokkute nga ñaan te ci service nga nekk jógal nga jóg rek ngay déglu toogal nga toog jëmal fee nga jëm fële xoolal fële nga xool fële waaye ñun bu ñu sañoon wala kuy ñëw dañuy ñaan yàlla mu mel ni moom wala mu gën koo yokk ci ci ay baax baax ndax moom loolu lay yéene canaba deful canaba at ndax gàmm nañ ba pare mu soog faa ñëw waaye nit des na canaba fukki at la mu fa liggéey liggéeyu ko loolu maa ngi koy wax ci sama xol di ko seedeloo monsieur le ministre ci sous-préfet Madou Mbow di ko seedeloo gouverneur bi nga xamante ni mooy kilifaam ca région ba ah, di sant président de la république ci li sëriñ ma di ko yëkkati woon daaw bi ñu fiy toog am jafe-jafe ndox ba mënuñu woon a indi courant ci forage bu bees bi Thiénaba ñu ngi amee woon boro bu jigéen 100 million di 94 millions ba mu ko yëgee la ko daal di dindi ca saasa ba yónnee nañ kayit comité euh, forage bi xamal leen ni amatu leen fa benn bor ba tax na ñoom itam seen bopp gën a féexaat bañ mën a xoolaat bu baax li ñuy liggéey ñuy ñaan yàlla loolu yàlla defal ko ci ndam ak sutura ak barke ci askan moom ko defal ci Thiénaba Euh, cant moom bu mënoon a weesu cant wala ngërëm mën a weesu ngërëm wala ñaan dinañ ko weesu ak yow monsieur le ministre ñu ngi delluwaat di la sant di la sant di la gërëm di la ñaanal yàlla mu dolli laa bàyyi sa xel dolli la ay daraja dolli laa déggale ak kilifa gi nga xamante ni nii yaa ngi liggéey ak ak général Mor Seck waaw kër bi ñu ko ko nomee fekk na sama mag nekk ak moom ci kër ga woo naa ko ba félicité ko kon loolu ak yokkute la moom cana ba daf caa bokk-bokk boo ni bu nu toogoon fii demandé loo xam ne lu aju ci moom la te mënuñu cee jot ngir ñëpp a ko bokk suñu paree dañuy suñu xel da cee sëriñ bi bu ko woowee poñe ko bala koo poñe sax mu defal ko li yëpp ngir wane ni dafa bokk ci dëkk ba kon ñu ngi koy sant moom it di ko gërëm di ko ñaanal yàlla sutura zahir ak batin di yeesal njaal ci euh, ab lay Diop mi su waajuram wu jigéen génn àdduna euh, Euh, ci fani màggal gi bi ñu koy waajal sëriñ bi yebal ñu Touba tax mënuñu woon a dem jaare ji ko waaye déggante woon nañu moom ci téléphone démb mu doon juróom-ñetti fan yi euh, dëj bi bi mu nu ko fàttalee xalifa bi ci boppam moo ànd ak ñun démb dem fa def na ko lu mat waxtu jaalante ak moom ñaanal ko yàlla ñaanal mbooloo te loolu ci seen biir njaboot la bokk ñu leen koy seedeel di leen delloo njaal ci moom di ñaan yàlla soxna soosu yàlla doolu yërmaaneem ak njégalam di nuyu le maire bu baax maire Talla Diagne di rafetlu ay taxawaayam ak i engagement am ci canaba ndax nit moom lu waay gàtt gàtt xel war a xam ni waxtu wuñ ne nit ki yaa jiitu ci mbir mi lu mu baax xeeb na lu mu ca def pour lu mu ca rek da koo mënut kon xam nañ sa pas-pas ak sa yéene mertaa la te yaa ngi ñett ñett yi sa kem kàttan yàlla na yàlla gën a jàppale ci zahir ak ci baatin di nuyu monsieur Abdou Ngingue au conseil moom it ñoom ñaar ñëpp ñuy seen njaboot gis ngeen réaction bi mu def ci 300 000 yi ñu war a fay ci kii bi noonu la monsieur le maire jële engagement ci ni lépp lu mu xam ne lu mu war a def la rek jël na moom décision fii ci kanamu ñëpp ngir ni mu ngi ciy déglu comité bu mu kon ñu ngi sant ñoo ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu diwaat ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla may ni ñu teewewaat ko déwén te gàmm gi ci fekke ko ak jàmm ak salaam te lu luñ ciy yëngutu rek yàlla def ko muy yiw te nangul ñu ko ملكية